Merci de nous rejoindre sur Kevin dans l'émission Soundadé Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir euh, comme invité Pape Aïdara Quelqu'un qu'on ne présente plus parce que si nous pas Pape Aïdara euh, nous avons euh, Aïdara chef de village, Aïdara aussi émigré. Pas Aïdara, ay dara سن mu nek ngeen fekk ci fi mu wara nek ni sant yalla bo bu baax ci dik ngeen dik ci tay di leen dalal ci jàmm di leen fi indil ay leer leer yo xamante yu laxasu won yu làqati leen ko ngeen am ci xam-xam bu woor bu and ak preuve ndax defena nit lepp lu muy wax day mën di teemay wala mo woné preuve bi yépp tek seen bët kon loolu mooy seen dikk fii tey mooy suñu jotaay tey ñun ñawkat lanu baykat lanu ak yeneen ak yeneen dafa naa wàllu faj bu nu yendoo ci dëkk bi benn bis bu ñu yendu aw rek ñu bari dañu xam ne yenduwuma fi loolu yëpp bokk na ci liggéey bi bokk na ci lijjanti nit ci lig ligi addunaam ku dikk des na la xalaatal wax la li xam xamante ni boo ci jaaree rek da ngay lijjanti ko kon loolu yëpp dañ koy sant buur yàlla mi nga xam ne moom mooy maye te képp kuy weddi mayu nit yow amoo ak may kon ñu ngi sant yàlla bu baax fas yéene nag nekk fi rek ah di jaamu yàlla di liggéey ba suñu boroom indi doxalam maslaa ak fas yéene di def lu baax kër gi koy man ci ndénkaane maam Bamba Xaadimu Rasuul ci ndénkaane Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mooy ndey téere yëpp indil lu ko foofu la ñuy fas teg suñu taan fas ñu jëfe sunna daal ixtifaa bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di fay di leen dalal lépp li ngeen te ne am tontam te gis na leen baax insha allah. alors mu am solo lool loolu euh, tey jii su ma bëggoon xam kan mooy ay daraja lan nga ñuy tontu. waaw ay daraja. man maa ngi juddoo fii ci njax ci sama wayjur ñu dox sëriñ Mbàkke jax wayjuram sëriñ Daawud jax wayjuram Maburi jax wayjuram Ahmadu jax bu ñu ko toppee ci maam yooyu sama yaay soxna fati Njaay di doom ci góor gi moom Mamar Maram Njaay bokk ci ñi nga xam ñoo yoroon daaray alxuraan jàng kaamil yi ca kër sëñ Fallu Mbàkke ci samay nopp sama yaay bi mu ganee adduna Sëriñ Tuubaa moo ko tudd bi muy bàyyi ween Sëriñ Tuubaa moo ko ñaanal dëkkoo ko fukki fan la ko dellu ay wéyjuloon kon sama yaay ci loxo Sëriñ Tuubaa la jëkkee sama yaay bi muy bàyyi ci ko Tuubaa la jaar loolu mu bokk ci sëñ Tuubaa lu mu laal ruu lu yem ak lu mu laalul bokk na ci suñu ndimbalit ñun ci suñu juróom-ñaari maam ba suñu fàttaliku jàng rek la ñu xam nag ak liggéey ak jaamu yàlla xamuñu leneen lu dul lool kon lu fas yéene nag li fi mag ñi bàyyi woon it mu ko mujj mukk mu réer muy neex muy naqari muy metti muy sedd muy tàng ñun jant lañu jant moom buñ lu muy bari bari bari bu niir yi fàkkoo ba dem ba bu mu toll fa mu war a toll ñun gënu bu xonq la duñ sotti ko mu duñu wuddati nag kon loolu bokk na ci jaar-jaar yi daal bu ñu déggee toujours ñu ne tey jumaa jii xëy nooy imaam bi bu ñu fi jógee àjjuma dem ci rajo KFC FM 89.6 fii ci quartier Gala di def jàllale xutba bi adduna bépp ñoo bokk xutba bi loolu dañ koy baaxe ndax kuy def jumaa war a xam li lay yóbbu ak lan koy jëriñoo lan la loolu moo waral ñuy def xutba bi ci loolu itam wàllu métier def naa ci ay métier yu bari buñ ci bay bay métier la cadre damay bay ba boole daara ji jàng alxuraan ba 1964 65 ma laxas dem dëkk bu ñuy wax boya ci mbaakol fekk jaar naa kër ma bu jaxate jaar kër euh, waroon a dem kër ma ñaaw si la waaye bi fa jógee ma fekk sama maam sama nijaay yaay dëkk na boya foofu ragal naa ne buñ ko toppee fii ci Kébémer bu ñu Assis Diop dëkk Kandala ak euh, Abibu moom wàcc na liggéey mi ngi woon ngaay di jàngale ak Serigne Seck ñoom ñëpp jaar nañ foofu ca gannaaw ba nga xam ne sëriñ Xaadim Mbàkke ki nga xam ne mooy way jur sëriñ Saliou Mbàkke mi tey jaar na boyo moo ko yabaloon ñoom assis Diop loolu leer na bokk na maa ngi taal jàng foofu bi ñu jógee foofu 1968 ma ñibbisi bi ma ñibbisee euh, dal di waaj fekk wàcc na alxuraan ba war a topp nag téere xam-xam ma dal di njaareem bi ma demee njaareem nag sama wayjur dafa noon jàng baax na liggéey baax na waaye jàng nga ba wàcc alxuraan kon li des mooy dama bëgg loo bëgg a liggéey ma ne ko jàng oto ci loolu la ma dal di yóbboon Njaaréem 1970 71 ma dem Njaaréem bi ma demee ñu boolem ak góor gi ñu Seex Gay mu yor coopérative ceeb bi waaye ci xarala defe naa daf ma won ni ñuy dawale oto rek ci 30 minutes mu jël oto lu mu def ma def ko ci suñu borom foofu dafay maye. mu ne ma da ngaa bëgg a nekk chauffeur wala da ngaa bëgg a mën a dawal oto ma ne ko déedéet man bëgguma métier chauffeur mu ne kon jëru nga ciy yàgg ku am oto man foofu laa ci yem defe naa oto am naa juróom-ñeenti carte grise yoo xam ne bu ci nekk maa ko jënd maa koy dawal loolu lépp mu laa am permis de conduire ku ñuy wax Samba Ndiaye ci sëñ bi ñoom Diourbel moo ma passé fa laa amee permis de conduire ba li ma defee euh, permis français nag moom dañ dama ko toppatoo demuma France mais fa ci loolu ba ni ma defee aventurier ñaar fi tax ak ñett ma nekk Afrique fu mel ne Gambie fu mel ne Mali Mauritanie Niger Burkina Faso yooyu yëpp ma nekk di ci dem di wër Côte d'Ivoire Dakar Afrique bi ma def ci ñaar fi tax ak ñett waaye am téeméeri fan fenn fu ma masa am ñetti weer ñëw naa njax téeméeri fan moom mësuma koo fanaan àll ci ñaar fi tax ak ñett bëgg sama réew ak bëgg sama askan bëgg samay mbokk ci loolu laa sukkandiku ndaxte ci bi ma ñëwee dama continuer di pay waaw dem naa njëriñ léegi damay jàng oto oto bi aw ma oto boobu yàlla mu soge doon yóbbu ab néew bi nga xamante ne oto bi soge na ma del si sama njaay bi ma yoroon foofu ñu arrêté ko ndax oto boo ko yoree bokk na ci yoon ci nit faatoo dañ laa war a arrêté ñu téye ko mu ne ma da dem ci seen jaay benn def tailleur nga toog foofu ndax comme yow ñëw ñu pare du ñëw ngay ma toogee ci sama ma tàmbal di fa jàng nahju tasawuda sixaab euh, di fa jàng maxaalifu niiraam bis bu ñu tëralal ma may jàng di ci atelier ma fa toogee diir xool gi xool ñaw bi rek suñu borom na am na lu mu naan bi ma ñëwee benn guddi maa ngi ci naaj di ko jàng bi ma demee ba tëral ba noppi ma dugg ci néeg sama maam bi nga xam ne mooy eh, baayam dafa ma fanaan foofu ci guddi gi rek suñu borom sànni defal ma image indil ma mboolem lu ñuy ñaw mboolem lu lu lu tëyee di ñaw rek mu nekk film bu daw ma di ko xool di ko xool ci biir di ko xool moo xam gant si deen ko casque beere banderole xaftaan suñu si àllaali mbooleem lu tëyër di ñaw ci génn guddi la ko suñu borom sol ma man daal di fii daal di toog njaareem daal di eh, jënd machine bay laa ma sax ma dem Saalum naa yóbbaale machine dama daal di ñaw rek mën a ñaw ma dal jëm Saalum fekk cooram jote bi ma demee ma yóbbaale ñaw suñu borom yàgg maa dimbali ak séeréer su gis eh, ñaw bu baax mu lay ñaw ñaw ba nawet bi jeex muy 1971 mu ñibbi si waat séeréer si topp si ma ndax liggéey lu baax moom ku ko xam bu la suñu nga topp ka koy def ci noonu ma dal toog 71 ñaw bi wuyu ma ma dal di jënd kër sama nijaay jàppale ma jënd foofu kër ci kër bu mag kër sañ bay saa ci kaw ndaka ma toog foofu jënd fi kër toog foofu ba takk fa soxna sama taaw sama ñaareelu doom fa la juddoo ma dal di toog sama baay nag nekk fi fii ci njaw moom doomi baay yëpp foofu nañu ñii Ndakaaru ñii nga dafa fi des bu ñoo xam ne góor gi daawu ñam moo ne dugg suñu maam moom moo des ci pénc mi ak léegi ñi ci des wàcc nañu lëg yaay ñi ci ñëpp wax nañu mel na rek moo fi des sama bàyyi woowaat ma ne ma yow de damaa bëggoon nga jege si fi ndax mu dem mag bu demee bay mag la koy gënal mooy ci doomam mi mag yaa ngay defal lu ne waaye nga ñibbi si laa bëgg ci noonu ma dal di dem saalum booba bay di jot ma bay ma nawet naa sëlu juróom ñaari at mu ne dinaa xolli bisaab ay saaku xolli ci gerte gi saabu wot duub jaafay am teg ko ci ko ah bu sama yaay dañ ko euh, kër gi gerte gi la def ñeex bu ñu toggee cere bisaab bi booba togg laa bisaab ngay def def ci sa tuuti soow di ko sefe loolu def naa ko ay ati at ci loolu ci la sama yaay xamaloon ne ma duutoo bay ñàkk soo bayoon ci mbooy góob moo tax man du ma bay ñàkk moo tax amu woon droit bàyyi mbay mi dama xaw a mage léegi lu nekk te li ma kii daj amatuma ko ci waaye teewul ba léegi damay bay damay baylu ndax euh, symbole la ci man daal kon bay moomu sama yaay moo ma dogul ne yow loo bay ñàkk boo bayoon ci mboy góob loolu moo tax du ma bàyyi mbay kon bu ma nee ñawkat bayka ma dal toog njaareem bi ma ñëwee fii nag fekk ñaw naa njaareem fukki at bi ma nekkee njaareem di ñaw c'est le 217 bi gis nga 217 bi suñu borom moo ko dal di jox ci anam woo xam ne ci ngërëmal wéjur rek dama ñaw ay yére yu bari booba maa ngi benn batter filaay booba bi ma ñawee walis indi jox sama baay jox sama yaay jox sama rakk yi ku nekk te booba oto laa nu mëbët sama baay dama demal ñawi bul bàyyi ñaw moo ma delloo ci ñaw ngir digalal wéjur dafa ma egg góor gi Samba Ngom El Hadj Samba benn séeréer bu yàlla baaxee mu jënd benn 217 euh, dal di jëloon ko kooku fëy ko mu dal di may romb ak oto bi rek ne dama lay dénk machine bi di ma xool ba mu yàgg ne dama la ko lebal ma ne ko ma ne mënu ma jënd machine bi wallaahi mu daal di mën a lebal naar dal di ne indi ci naar bi may ñawee Souleymane Sahat euh, daal di ne ko jëndal ñaari carnet yoral benn naar bi yor bis bu ne loo weesu rek bu def foofu bu mu fi jël suwaatee te muy dund na ngeen déwén lay doon fukki weer ak ñaar année bi sàmba ñu ñu seet carnet yi bisu keroog dese naa ci jamono téeméeri junni ak fanweer ci laa dalee jënd kër na ci xaalis boobu booba kër séeru gis nga 217 baa ngi nii ku euh, ñu wax góor a sëbi moom moo ko sukk daali ma ko photo dali koy grandir ba mu rëy dama ko doon feetal ak mu ne di ko tàngalal café indi ay beignet ay biscuit ndax man 217 dama koo gëm meilleure machine machine la boo xam ne dañ koo garanti téeméeri at ñaari tayal mën a di ñëw kii guddi kii bëccëg ba muy téeméeri at 1960 le 217 fii Afrique am benn réparateur booy dem fekk fa carcasse 217 meilleure machine 217 ku mënta ñaw daawu ko am koo ma sa fekk mu toog ci 217 ne ko mën ngaa ñëw kooku mooy 217 kon 217 bokk na ci machine yi nga xamante ne ba léegi nii bu baax bi un million may na ko seen wanaa yi doon ñëw booba la ñuy jënd nii boobu bu bees bariwul waaye nag mujj na ñëw Dakar ci di foncé compagnie Bernina la tudd marque bi mooy 217 ndax bu ñu nee Bernina am na 217 am na 540 am na 640 am na 740 yëpp Bernina la waaye meilleur bi nag moom la ginnaaw moom Sancerre ak Paf ak Nix ak del beccam gasal fiiri xeeti mësul yooyu yëpp dañoo baax ndax ci biir sincère lay ak mag ak euh, euh, biir ko yoy yëpp xéti musul la yo xéti ne ku kuy ñaw kat war nga xalé musul mom moom alhamdulillah bi ci sinuwaa du guer do nga def VI 23 yi bu dee VI 40 bi moom ku ne xam ne mooy meilleur yi esrus la VI esrus moy meilleur sincère ay 700000 la doon jar ñi ko fi amul moy euh, njagambuub Karim Ndiaye ñoo ko fi amoon ci jamono boobu 217 it jamono bi muy bi ma nekkee Jurbel yi ñëw nag ba war a ñibbisi eh, ragal naa bi may ñibbisi am na duraan yoo xam ne ak ñawkat la yoo xam ne topp si nañ ma sax Jurbel fii di ma ñawloo man dama mës a gëm ñaw màggali Tuubaa sax dama daan jël machine yóbbaale teg ci bu ma demee marché occas wala ci rii yi jaay ci marché ca mbedd di ñaw te am naa xaalis de waaye ñaw laa bëgg rek su màggal sax ñaw laay xëyee ca Touba ba màggal gi jeex ma toog ba fukki fan ak juróom xëyaat sama machine ñibbi bi ñu demee ba 1974 nawet bu baax am fii wante dañ ñoo jëkk a am nawet jëkk ñoo jaay gerte ma dal teg machine ca Diourbel ñëw fii ànd ak na mbaaru jaay ñëw ci marché Kébémer foofu Mor Syll mooy jarbaatam ñu nekk fa ak ku ñuy wax Baye Dame Fall ak nii di suñu appareil ñu yor leen 1974 fii ci marché Kébémer ma ñaw fi lu mat weer ñaar fukki fan weer ñaar fukki fan traite bi riggal ma am fi xëy dal delluwaat Jurbel traite bi doog a foofu ma am deux campagnes. Mm-hmm. mu mel ni sax loolu bu ñu ko seetloo. waaw dafa mel ni feeñ na ci sa wàllu liggéey ndax am na yenn xeetu ñaw yoo xam ne soo ko bëggee dañ naan la demal ci ay darajal loolu ko waral. Euh, xam nga ak xale mënta ñàkk waaye yëgguma ci sol ay jiin am na jamono boo xam ne nag euh, jiin rek laay sol waaw ak simis yu rafet ndax euh, xale ku ndaamaan moom naka jekk rek nun hmm, dañ koy dund daal di dong du tee bëgg sa bopp waaw bi nga xamante ne xool naa ñaw eh, te fu ma toll di dem njaareen ki kër bu mag ci sëriñ bi ñafee tase ñëpp li ñuy sol ma xool ne mbooloo lañu te bëgg nañ loolu te it col mu yiw la ma dal di xool nag xaftaan ni ñuy sol ma tàmbali du ko ñaw man kenn ñëw ma nasal pusa kenn jàngalu ma ñaw awuma patron du ñaw sooy du réparé machine lépp lu ci mën a doon mën naa ci am ay diplôme waaw ku mu mas jàngal ñawit boo ne ci atelier jalaa génne doy na sëg sa sa sa sa sa nit ñu wóolu la Karim Ndiaye mi ci man la génne Pape Sène mi ci marché téeméer ci man la génne Dame Touré mii ci man la génne ba Aliou Badara Diagne da ñaw léegi. bàyyi ba xëy ja naa ma ñaw doomu bàyyi sama nijaay Ali jëf dugal ko ak yu bare bare bari fi jaar ci bi ma ñëwee fii di fi ñaw ni ma leen yore woon ba 1980 81 ma dal dem Dakar bi ma demee ma dem yëbbal di fa ñaw toog fa benn at ci laa dem nag Mauritanie ma dem ci Namak Sër bi ma eggee aw ma machine de ndax dama amoon at bi ma demee Katare dama dem caaro yi bàyyi ñëw bi di jaay géej bi ma nekkee ci pàkku géej bu yàgg ma dem Gambie bi ma demee foofu lañ jënd jënd kër géej ak indi ba mu yàgg ah, njaayum géej bi bu ñu jotee tisbaar Euh, bu may dee jàpp wala yooyu xetu geer gi par force mënu koo dindi su fekku saa mu bëgg a julli xetu geer gi mujj boo sangu woon sol yi boo ñaqee xetu geer yi génn ma xool ne daal man dama fasin di jaamu yàlla ñaanoon naa suñu borom bu ma génn waxtu fii maa koy man te xeetu xetu géej gi tar na tar boo xam ne ma jaayante ma bàyyi jaay géej loolu moo ma ci génne Ah, ginnaaw li nga fi wax mu am solo lool ci wàllu liggéey lan moo sabab sa delsiwaat fi ci nja ba nekk fi chef de village ah. kooku bi ma ñëwee jurbel ci 1980 boobu sama baay moo ma woo dama mag bu demee bay mag da war a dëkk ak doom yi ma bi ma ñëwee 1980 boobu daluma ak siwuma njax fii ci quartier déggoo ci sama kër ja adija laa ñëw bi ma ñëwee ma nawet ak moom ndax man nawet naa seen juróom ñaar at te booba fii góor gi am nañu distance bi moo bëgg a béyee ci tool yi xam nga moom buum añaam ma dal di dem fee sama jaar ar ja laa wàcc bu ma jógee Jurbel ma def fa benn at bayal ko fi téeméeri bëri koy gerte ak lu ma fanweeri bëri koy dugub fii ci toolam yii man ma bay bi may gerte bu bari ci loolu benn at boobu nag waaye lu baax lu baax rek ma dal ne kër googu gis nga bu ko bayoon ga tax kër gii ci stade sës ci kër Moussa Diop ci laa jënd kër fab gattax dama ko bayaale woon dugub sàkk ci kër gi dali am kër ci noonu kon nawet laa fa jaar jeex dali am sama kër kon ñëpp nit ñëpp yor seen kër mooy sama kër suba bu ma xëyee nag danaa ñëw fii nga siyaare sama baay mu dëkk fii ma dal di fay toog bi ma demee mënta ni quatre-vingt vingt damaa ñibbi si waat mais dama toog benn at ma delluwaat na bi ma delluwaatee nag laa dal di def maçon di service bi ndax da lu may am machine te may am naa permis de conduire da may am oto te su ma yéenee toog ma dal di tàmbali di service maçon ay birig dem ci bam yag yàgg ma karo moo gëna a ma dem ci ñuy karle bi ma ma di len gazer ciment di dag kay ñi ñuy waye peut être ce turel ma fa raax ndax lu ma gis man ci la ali bi problème kër la ci seen kata guddi ku ñuy xool faal ci marché ci ci ci sànni bi ñu ci appartement lig sa waa garde bi dara fekk nañ lool ak len ci wa euh, yabitul jóob am ñoo xam fekk nañ bi ñu may jox sama problème ci lig sa ci kër la ñu bari du ñuy karo man maa ngi dàq a karo kër lër laa moo xam sol moo xam faïence moo xam pelante lu mu mën a doon rek bu ma la defaraloon karo fii nga xam ne meilleur kër lër naa ko te farax bu jeexee rafet boobu am naa ñaari ma seere ko di fa liggéey kër la ci laa tàmbali am ay cinq cent mille quatre cent mille ba ñu gisiwaat fii li may dikk samay ute yu yuusu ba mii maa ngi bàyyi seex borom daara gi laa may samay kuréel samay tolos fii ndaa kolom samay li may liggéey yëpp moom laa may matériel bi ñu gisee kon loolu bi bi ma tabaxee kër bi maa eggale raax bi maa monté bunt def lépp loolu ci kanam yuusu kon maçon am naa ci boobu jàll xam nga rek avant muy ñibbi si fii bi may def maçon foofu ci la benn tey ñun ab liggéey dégg ma mën a ñaw mu daldi may woolu ma jóge sànc ngaa bu samay kuréel ak samay niveau fekk dafa wax ku ñu Ibra Diop moo yor oreelu tey Dakar tey waaye Dame Ibrahima gii la dëkk ak Ablaye Diop ab liggéey amul ku yor atelier ci marché Sèye Ibra ne ko am naa xarit boo xam ne maçon lay waaye moo fi dàqa ñaw fii ah bu ngi woonu ma ma ñu ñëw marché seen ngeen lu tàqalee ci ngoon nuyu ko ak samay kuréel ak samay coos ak bi ngi xool ma ba mu yàgg ne man dañoo duum man tailleur laa soxla tabax lu ma jamono bii man man ne ko ah tailleur waaw ma ne ko ñawkat couturier daal nga soxla wala tailleur mu ne lii loolu ma ne ko tailleur ak couturier boobu ma ne am naa ñaari nit yëpp damay damay mu ne ko romb nañ am na lu mu la jàpp mu daal di jël ñeenti meetar popeline boo xam ne lees un mètre wala ne ma dama cee soxla tubay tubay gi am militaire ko moom bu baaxul dama koy fay ma ne ko bismillah ma ne ko machine bi ndax dana dagg mu ne ma déedéet ma ne ko ndax dana luj mu ne ma déedéet ma daal di teg ndax machine bi tiye tiye walaa bi ba mu dëgër jogi accélérateur bi ba xam li muy te tubéy gi dal di koy manipuler di ko ñaaw di ko ñaaw mu toog di ma xool ba yàlla muy wëndeel bopp bi may ñaaw muy wëndeel bopp bi maa ngi taq ripp ciment teg samay ute bi ma naan ko ba yële ko caaya bi dafa waat ci yàlla yaa ma daax a dafa giñ ci sëñ tubaale yaa ma daax ci gaawaay bi ak melaw ci loolu ci laa dal di jóge nag mu ne damaa bëgg yoroon na atelier bi ma ne ko noo ko bëggee mu ne bu la neexee nga liggéey ñu seddoo bu la neexee ñu def ñetti xaaj nga nga nga nga yor ma yor la bu la neexee ma fay la weer ma ne ko xam nga nu ñuy def dañuy def ñetti xaaj benn bi la ñu benn bi yaa ko moom benn bi ndax sa jarbaat yi nekk ci atelier bi dama leen bëgg a jàngalale fiq suñu jàngul ndax dañuy jànguñu tasawur a sixaar du dëjul mën a julli duñu mën a kon duñu seen diine day des mu ne ma ah loolu mën a ko nañ def loolu naa ko kon gis nga tey daal dañu jënd mbuusu ñaar def ay bagages yu ñu doon di Sénégal ma ne ko nag atelier bi am na bor mu ne ma waaw am na ñetti weer yu mu fay luyaas ma ne ko ouvrier yi sa jarbaat yi amee nga leen bor ñu ne ma waaw ma ne leen nag yaa ngi dem Sénégal du ma la bind leetar du ma la yónnee xaalis bala ma laa yónnee danaa fay bori atelier bi fay nga am xaalis mu ne li ma fi bàyyi weeru baraxlu nga toog bi liggéey koor koor yi digg ba tëbës mu ne salaamaaleykum ñëw yu mu dikkee fekk ma am ñaari million ci xaalis ndax da doon ñaw xaftaan juróomi téeméer man ma daleeg si xaftaan junni juróomi téeméer laay ñëw waaye booba ñu fay jaay ñëpp bu ñu xisee xaftaan yi may ñëw ak sëgóor si dali may song te moom juróomi téeméer ñeenti ñaw ñetti mos xaftaan gramme sooy ma ak si biir vingt mille laay ñaay moom waaye ñun ay Marocains ñoo jóge Maroc jël wol ak si di ma ñawloo ma am fa ba tabaski ma am deux millions kenn mu ñibbi si dal di ne ah léegi di tabaski pare mu ñëw jarbaar yi toog ñu toog ndaka ma Abdou Gueye tey de ñëw nga waaw ma ne ko kon at bi mu fi bàyyi woon fay naa bari luyaas yi ameeluñ ko dërëmu luyaas fay naa si ouvrier yi bor ya nga amee loon fay naa lépp léegi deux millions trois cent cinquante mille ñu ngi ci xaalis mu taxaw tiim xaalis bi ñëpp toog mu woo waa Bël waa Nguy Biire waa Kër Sayar famille Guèye yëpp ak ñu dëkk euh, Thiamène Mbacke Bari di taalibe bi seen Karim boo xool day am ñaari poos ci biir ci dóor ci dóor bi ci dawaa bi nañ koy dawaa mooy doublure bu féete kanam du boo ko wëlbatee nii danga gis benn poos ci bitti jotewuñu dara jotewuñu dara kon yére bi war naa am poos yi biir ak poos yi kaw ci poos yi biir yi nii soo ko xoolee doo gis dara fii loolu jàll tisi bi coupé wuñu baat dees na ko ñaw ba mu egg ñu doog a coupé baat rulle ko génne baat lañu mujj coupé bu ko defee ci liggéey bi li nga xam ne mooy dóor bi lii féete gannaaw buñ ko tegee ba mu dem ci biir lay féete te doo ko galen boo ko galenee yàgg yàgg ñaw bi buñ ko fóotee day ras dana mbaq kon loolu du jarab bàyyi xel ci liggéey bi bokk na ci ñaawit booy ñawal góor da koy piqué numéro 2 ci piquage bi bu ñaw jigen nak mom dang koy def numéro 4 ndax dana lu wees ak teet bi bokkuñu picaas boy taxawit fa wu nga jam sa pousse ba tisé bi du dérangé fenn waxtu way ñawit tisé bi suuf ngay gëna a ñor ci kaw ci sa bi suuf da koy ñoddi bi ci kaw nga xaw ma di ko yolomal ndax daa machine bi moom yóbbu rek la baaxoo ndëggu li moom dara koy puus rek kon day day contrepuisé bi kon yow yoway xam ne lii ñaw ginnaaw dëng na il faut nga rëcc boo ko rëjee nit il nga jéem ko beebal yëpp nga di ko dindi pour ñaw dafay set moom sikkim ñaw du am sikkim ñaw ak bët ñoo yem bu setee bu tuutee na set bu réyee it na set ab doo boo koy ñaw da nga koy këpp mu ne biir taxaw il faut nga samp sa pousse moy tax do perte ben pousse ci li ngay pigé tàndar bi day and ak daay ni muy doxé doy taxaw da ngay samp sa pousse do mi ngi ci suuf ñaari loxo moy ñaw mu tàndar tise bi and ak tissage bi mesure bi dox boo sampee nii wëlbatiku léegi nag lii dóob yi ngi ci suuf waaye boo ko defee nii dana la jox benn rëdd benn tërgën tërgën mooy mandara boo xëyee da xam la ca suuf nu muy yem dóobi boo koy ñëw doo ko doo ko xool yére boo koy ñëw féetale dóobi kaw doo ci am li nga bëgg seen nga dóobi nu ngi ci suuf 90 pour cent boo gis tailleur bu ñu ñëw dóor dañ koy jaaxaanal déedéet da koy këpp ci suuf bul amagul baax dañ ko ñëw ba lépp naasi nga dal def nii nga tolal épaule bi tiré fii def nii xool nii da nga bàyyi woon fii sept kii baatam day 41 bi nga bàyyee fii sept da ngay am fii 3 7 plus 3 égale 10 10 boobu nga bënn fii ci kaw da nga bëgg rond boo xam ne diamètre bi lay jox 40 sur cercle bi kon diamètre bi da koy def diis am nga fii 3 nga bëtt ko amoon nga fi 7 3 bii nga jël ko léegi lii 40 la lay jox waaye 40 da ngay tibb 1 boo tibbee 1 wër ko bu eggee cercle bi dangay am 11 nga am 41 coup bi te coup mooy baat léegi 40 bi da koy tibb 1 soo ko tibbee ba rulle ko ba eggal nag What if he knew? bee 40 la bii 41 lu tax soo ko la xam nga ne bii moo ëpp bee tuuti dafay am looy lem fii lem ko fii li nga ëppaloon foofu donc ko fii jël nga dal defati nii nga fekk ko ci bu ndaw bi dal jël bi gis nga lem nga fii 1 bii 40 la bee 42 nga lem nga 1 bi dugg na jël nga 1 léegi boo àndee moom nag di dox su bëggee perte da ubbi bi ci kaw su bëggee ëpp nga upp ko nga xool bii ak bii soo ko fi fekkee baax na mais da ubbi tuuti ndax patin bii béré bii moo ëpp bee deux la bii trois daf koy muur ndax mooy bay féete kaw kon da ubbi tuuti marque bi boo ko xoolee benn ngi nii benn nga fekk ko ubbi tuuti soo ubbee bi ci suuf di bénéficié ci bi ci bisim kow nga def nii bi ko xool mu ëpp tuuti seen nga leen fiy fekk léegi am nga li nga bugg séen nga ko nga bank mu dugg ci biir mu ngi nii séen nga baat nga kuppi woon lay poñe coppati cat lii ba boo ko ñëwee nga coppati cat lii ba boko ko ñëwee nga dal def ni nga dil siwaat fii ci bitti gi tuuti maanaam 1 ci sag bi nga topp ko sag bi de siwaat ci baat bi ngay dagg wëñ wi boo ko may dara caxal apa soo gis daggal bu ñaw bi noppee boo gisee benn taxaw rek fay ñaw bi nga def ni rulle ko mu dugg ci biir sepp fii bala nga ko fini sa danga koy natte ba benn du sut morom bi nga def ko nii dali xam li nga fi am boo ñëwee mu ngi nii léegi xam nga ne boo fi agsee da nga am lu baax nga dal dandale bii dali xëcc bii xool ñaari wëñ yi nga samp ko ci kaw ci kaw wën gi nga koy samp gàttal wën gi ba boo ko defee cat la dugg ca suuf teewoon nga ko nga fat ko tuuti tuñ ñu féete kaw bu doon gimiñ gi ngay waxee sax tuñ ñu féete kaw toujours mooy ëpp tuñ ñu féete suuf ñaw bi féete suuf bu feeñee tuuti rek du du jekk kon tuñ ñu féete kaw mooy ëpp ñu féete suuf nga del si dal koy wàccee waat ni dugal ko tuuti def ni ñëw ni nga nga continuer ba ca suuf ba bu mu ras bu mu def dara fukki tailleur yoo tànn juróom-ñeent ñi mën ñoo ñawe baat ni dañ koy coupé ferme bi ci suuf def ko ngor fa fekk waat ba ci ko ubale ko fekkaat nga fi wéñ bi nga samp ko ci kaw wàccee ñeenti pusa waat ni fekk ne li sax ko bank mais ci bir la nga booba bañ koy ñëw dañu koy këpp baat bi boo boo koy ñëw da koy këpp ca suuf lay ne doo ko gis diwee na ko léegi nag dagga ngumi dagga dara dégg mhm. waaw kon da def nii léegi nii nga xool ñaw bi nga wàccee cinq ndax mbubb ci gannaaw dara nekkul ci jëmmi nit dara nekkul ci gannaaw du dellu gannaaw boo ko solee wàccee bi nga ko wàccee nii ñaw bi wàccee fii cinq génne fii quatre nga del def ko nii mooy waral boo solee mburu du mës a dellu ginnaaw nga def ni xool bi ak bi nga comparé ko xool teg ni def ni bañ tolloo bu ëppee nga raf tuuti nga marqué dali tiire nii soo tiiree nii donc marqué fii doyul nga dagg de dafay am ca bee nga tiiri ni def ni moom it ñor bi ko gis nga boo daggee nag seen nga nga fekk ko fii léegi bii sero la kenn sërfile wu ko bii da nga koo solfile te bi nga koy solfile wëñ gi mi ngi koy jàpp par tuuti tuuti kon da koy rek boo ko nattee woon ne day manqué 7 centimètres la koy sute ndax bi nga koy ñaw da koy sute boo ko nga gaxaj ci ko nii li wér gi jëloon dellusi nga ñëw ci bëgg naa gis nga ni mu xaw a rase da koy dagg def nii léegi nag noppi nga da jëm ci boole mburu yi ab marqué yi nii nga ñëw fii ci loxo yi bu loxo boo fa rek teg de dafa am braque poche droite dafa am kon da nga koy seet bala nga koo monter nga xool poche droite bi moom ngay jëkk a teg nga xool marqué bii ak bii nga tegale ko. mooy roof gauche ak roof. mooy roof droite ngay jëkk teg. waaw seen. boo koy tegit boo ko tegee ci da ngay jël vingt ci kanam toujours yaa ngi boole ñaari tur ñaari yére jox ko machine bi lu jamp-jamp rek booy taxaw na nga samp sa mooy tax li nga bëgg nga di ko am toujours aleykum salaam na nga def Número 何 wëlbatee nii ñaw bi da nga koy solfile lépp waaye da nga koy wëlbati waat nii li ñuy wax plandar wala di wax faru da nga koy plandar léegi nag parce que ñaw góor dafa war a dëgër da koy fàkk ba mu set tisub lu yàgg yàgg yàgg du tekk palaanda rek bii ngay banque mu jëm si ci daara ji bii mooy daara ji bi muy róof loo yàkkamti yàkkamti ak kawar bul ko may mbuñu bu noppee wuru cee feeñ ñaw ak bët ñoo yem ñaw day set bët bu réyee na set dafa na ca tiise ba da koy féetal ruux yi fiite gannaaw wërta féete ci kanam lépp luy defar ci lu bokkuloon ci programme da nga koy féetale gannaaw bu doon ab ñaw la danga nga koy féetale gannaaw bi ngay programme ñaw bi loolu da nga ko ciy sóoraale ñaw góor dafa sensible doonul rek loo tëb sànni lu nekk am na fu muy waral na ci nga xam ne nii benn loxo bi dikk na ah nga rëdd yi ma la doon wax kii da nga tëdd gannaaw boo ko ripaasee danaa am feeñ feeñ bu fi nekk dañ la ne oto bi fi xis jaar ci noor bi ba ba noor bi jeex boo fa jaaree lu mu ngelaw nga exposé bi ci àll bi waaw ngelaw dafay dafay des rek rëdd bi boo ko paasee day des kon na féete rouge wa ca gannaaw nga xam ne soo defee nii Hmm? nga xool nga ko ñëwee da nga koo palaandal teewul da koo sërfile woon mu